si wàllu politique boobu sànq génne tudd nga tudd nga sax seen tur muy kii di Adji a ak kii di Ousmane Sonko. Euh, ñu bëri naan ay fu mu toll nii Adji Sarr français yi ñoo ko ngemb wala dafa ñoo ko ngemb pour mu yëkkatiwaat histoire bi Sénégal. waaw histoire awra moom dootul am fii Sénégal moom. Hmm? c'est interdit. histoire awra. dootul bi moo ko laal ak awra bi laalu ko loolu moom dañuy dem fañ ko bindee kayit ga ñu réglé ko fa mais coow loolu dootul am fii Sénégal parce que loolu moom ba mu mettee man rek maa duggoon wàcc ci géej gi def lu ko calmer mi ngi vaar. ah waaw yaay wax dina de. tey sama yaay. kenn du moom. kon bis bi daal nañ ci nekk comme soos bis bi nga moom boo bëggee dëgg-dëgg léegi mu croc day croc ci nii mbaa ci naa mais sunu réew mi dañoo nekk ci xàppi parce que dañoo soppi doxalin. xam nga lan la président Macky la mu diggee woon ak ñun. dafa dugg ci góom bi dafa laal góom bi góom bi di commencé di neex kon xolal fu ñu wokk dafa xasan kon kenn duñu ko yàqal dañoo nekk ci beneen monde suñu tali yu pare yi suñu pont yi ñu intégré dañ ciy bëgg dox sans stress te dañoo am stress bu bees am terre bu bees te bëgguñu di dugg ci terre bi di wuy ay vocalu coow ak ay histoire ak ay bougan xolal làmb ji correct showbiz bi correct